na sa baay nee yaa raaxiluuna li yasribin li yaballigu li abil batuuli ziyaarati wa bi rawdihi atum tubaab mi ci la Seydi Hadj Malick sanc fii nee na nag mi nga xam ne ni ñëw na ci réew mi di wut foo xam ne fii fa bëgg def daara yoo xam ne ñii daf fay daan dooleem ak di fa tuut ñaxam ngir liggéey doomi soxna xam ne dañu ànd ak moom mu bañ a sànq seen dund mu di leen jàngal li ko yàlla xamal boole ñuy liggéeyal seen bopp di fat waaye duñu liggéey pour jox ko ba nga xam ne loolu am na comme que <coughs> daawul wax sama taalibu mbokkum taalibu la wax waaye ci nun lañ ko mën a tudd taalibu nag mu di góor gi man Njaay Joon Waar yal na ko yàlla yërëm ba mu faatoo man la Seydi Abubakar yoral maa dem Ndakaaru jullee moo nekk fii chef suñu bàyyi jawriñ may sa mbay rahmatullah alayhi nekk fi ñu ne góor gi da ngay bàyyi ñu topp tool suuf su baax soo xam ne daa fa mën dem di fa bay di fa jàngal saw nit mu ne leen déedéet bëgg yu ma fa noonu dama bëgg ma bàyyi ma ak samay bokk ba mu wutal ma li may laaj ci seen tey bakkan kenn bañ ci dugg su loola sotti nag ma am loo xam dana ko soxla sotti bokk leen ci moom yëgal leen ko góor gi mu tufa tey bi sëñ xaaj maa ne ko am na gan gu lay seet ci ni ma ko sëriñ Yuusufa nettalee radiyallahu taala anhuma ba ñu ko waxee ne ko am na suñu wax xaaj ma sëñ xaaj Malick moo lay nuyu mu man day sama mburu mu gudd noonu ak sama suukar sama mburu sama mburu mu gudd ak suukar noonu ñu góor gi waxtaanee moom ba noppi mu ne ko li dara ci sama bënn bi lépp lal bi dafa sa jëyam jox ci ndigal ci wàll bu nekk sëñ xaaj Malick ne ko waaye nag bëgguma jàtti bu kenn du nangu suufal jàmbur jox fu ñu daan béy yow nga wutal ma foo xam ne fii maa koy goral bopp mu ne ko am na fi foo xam ne fii dafa tëj ñëpp bàyyi moorante loolu shérif loo moo doon waxtaani keroog ay ay bënn ma ngi fi gas na fi teen yu bari wa tabarakallah yàlla na ko yàlla yërëm yàlla nangu loolu mu bàyyi place bi Seydou Hadj Mbaye ko man nag foofu la bëggoon foo xam ne fii kenn mësu fa dal góor gi jox ko ko fi fii ñu toog mu ñëw nekk fi ak ñu ko doon jàppale ngir jëm yàlla di ko gor ko gor di ko gor ba mu leer nañ muy mille neuf cent quatre Seydi Hadji Malick radiyallahu taala fab tool yi ak dëkk bi teg ko ci loxol Serigne Youssoufa Diop radiyallahu anhu ne ko léppañ sa loxo ku bëgg a dëkk jox ko kër ku bëgg a bay jox ko suuf waaye kenn moomul ku toog ba mënatoo bay nag wala ngay kii eh, mën a mënatoo bay fabal na fab suuf si delloo la ko waaye bu ko jox keneen يا عذولي فاصرف عنانك عني واطلب الغير إنني في فنائي خم شوق من ذاقه لا يبالي من أتى لائما بدون امترائي حب طه للمذنبين نجاة وأمان من هول يوم اللقاء إن حب النبي خالط لحمي وعظامي والدم دون ريائي إن حب النبي خالط لحمي وعمامي والثمد ريائي هذا شوقي لهم بخير البرايا مضار نطلق من كرماء السلام عليكم سيدي ابو بكر سي ابن الحاج منصور ابن شخص الحاج مالك noo ngi fam nuyoo bu sell bu nu jëmbe ci sunu xol ak sama xarit yëpp ak mbokk taalibe yëpp ak soppe yëpp di ko teg si ci sa loxo fii fekke wunu sunu maam Cheikh Seydi El Hadji Malick radiallahu taala anhu waaye fekke nun nag Seydi Boubacar Sy ak El Hadji Mansour sama turandoo ak El Hadji Abdoul Aziz sa baay ba sa xarit ba sa soppe ba di alxaaji abdul aziz di la woo fii ngeen di waxtaan waxtaan wu xam ni diine ji lislaam bi mbokk gi tarixa bi rek ngeen di waxtaan góor googa kenn du moom yanul yàlla tas ci barkeem si soxlawul guddee waaye ki décentralisé à travers l'Afrique ba foo dem ci gox boo mën a dem ci Afrique ba ca Europe ba ca France boo déggee na si àq bil àq bu laaj kan la maam Cheikh Sidi Alhaji Malick la asi ah li ko mandargaal ñii noo jógee ci Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Chérif di ay sëtu Cheikh Taïb ay sëtu Badamar Aysatu Mahamadul Habib ñooñu fi ñëw ñëpp fu ñu daan daw daw nu fenn jëm kër Cheikh Sidi Ahmed Tidiane du ñu kër Cheikh Sidi El Hadj Malick sa baay sa soppe ba sa xarit ba di Alaaji Mansour yore Cheikh Taïb wane ko à travers tout le Sénégal boobu Cheikh Taïb mooy xalifu Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ah si xanaa léegi la coow li bari rek waaye Cheikh Sidi El Hadj Malick xam na ni ca ni mu defal Cheikh Seydi Ahmed Tidiane ak Cheikh Omarul Foutiyu wax nañu ko ko amul benn nit ku ñuul ku ko defal bu dul Cheikh Seydi Alhaji nag si maa ngi laa ziar sama doomu turandoo sa baay inspecteur tariqa Cheikh Seydi Ahmed Tidiane ba sa baay 39 et 45 sa baay 57 ans ci la def war a def ay Seydi Boubacar maa ngi lay ziar si Malick di teg ziar bi nag sa nga tegal ma ko sa loxo mag ja sa xarit sa soppe Sidi Abdoulaye si sa ko wax moo ko ni booy diisoog Serigne Mbaye Sidi dara du yàqu Cheikh Sidi Alhaji Malick dafa bari doole la sa bàyyi Alhaji Mansour waxoon ba aman ña nga awa caam di taggaate daf ko ne noppil Cheikh Sidi Alhaji Malick loo ko dugal loola ca dëgg ci suuf lay nekk waaye bu du konteeg loolu Cheikh Ahmed Tidiane dajawaat ngeen feneen fu du Sidi Boubacar ak El Hadj Mansour Tabara Cheikh ak Abdoulaye Cheikh noo bokk ndeeg bàyyi Tabara Cheikh mooy wullu Amit Seck bu Maxtaar muy sa yaay Abdoulaye Cheikh mooy asukan kon nag yàgg Cheikh Tidiane daje ngeen lool Cheikh Sidi Al Hadj Malick leen boole nag asi maa ngi lay ziara di ziar sa rek yëpp ak Seydi Abdoul Aziz Amin sunu xarit ba sunu soppe bi it koy ziar ak nag ki xam ne moo daan toog foofu ci sa wet di Cheikh Seydi El Hadji lépp loo ko wax mun la lu sëy bay wax soo bàyyi ne ku amul kilifa <laughs> jinéy sa kilifa te ku jine dégg sa kilifa fu ko neex bu jëmee na fa kon si maa ngi la ziara bu baax di jox sama nuyoo ci ñooñu bi ci des di ziar kii toog sama wet ku ko yónni Thierno Bachir Tall mooy kan mooy xalifa Cheikh Omarul Foutiyu ku Cheikh Omarul Foutiyu moo am benn taalibe ci gisu ko taalibe bi tas Afrique tas le monde tas Europe mooy kan mooy Cheikh Seydi El Hadji Malick asi ah maa ngi laa ziar bu baax tey du nu bañ timis ji jàpp nu di ziar nag sama xarit sëñ Mouhamed Mouhamed Moustapha Cissé muy Mansour Mbaye Mansour mooy moom damay wax Tafsir Sakho lu mu bokk ak Moustapha Mansour bokk na lu nu bokkul Mansour bokkul di ziar nag bu baax kii toog sa mbokk ma sa xarit ba ki nga bokkal maam Maram Mbàkke wóolu ko lool muy Baara Abdoul Ahad mi ngi nii foo gis tànt bu nu tànt booy seet Sidi Maxtaar su sëñ Baara ñëwee rek Sidi Maxtaar ñëw na sëñ Maamun Buso mu baax mi di sa mbokk démb ak bërki démb di imaamu Tuuba mooy jiite fa Xaadimu Rasuul tëdd wax na moom ci lamiñam ak ay mbokkam ni keroog Cheikh Abdou Khadre Mbacke ndax mbég gii danaa ko bégati xanaa yomb ak xayaamati bu mën a yëg Rasulullah ak Xaadimu Rasuul ñun ko gën bég mooy Alaaji Abdoul Aziz julli noo ak man <laughs> kon di la ziar bu baax ak nag kunu président Macky yónni neex nanu de ku mu nu yónni kontaan nanu ci moom de ndax mooy chef de l'état maa ngi ko wax léegi barut si sama xarit ni ko waaye nag ku mu la yónni nga ni Mansour Sy laa tudd yaay kan yaay ministre de la fonction publique ku la yónni ñun la président Macky lu yónni fu la yónni ñu ne jag saaw ay président Macky wàccoo na ak ñun jag saaw ku fi yónni nit wàccoo na ak di nuyu nag sunu xaritu bopp sunu péete bopp sa baay alxaaji Abdul Aziz moo ne moo ne amul péete doo am cër waaye Maxtaar si si noo ngi lay nuyu bu baax di la jox cër bi la yàlla jox ci nun ak di la ziar nag sama rak sama doomu baay waaye nag di sama doomu ndey di Habib Sy su ko joxee ba pare ma jox sëñ Baara Abdoul Ahad su pare ma soog a jox sëñ Imam Bousso su pare nu jox ki xam ni moo fi représenté le président Macky Sall su paree ah nu jox nag ki xam ne te jii fii mu toog moo toogal Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum fii mu toog moo toogal Seydi Abdoul Aziz Al Amin fii mu toog moo toogal Maodo Sy Ibn Hadj Abdoul Aziz fii mu toog moo toogal mu li mbokki jullit yëpp ak diine ji yëpp ak lislaam bi yépp ak tariqa bi li Sidi Boubacar Ibn Alhaji Mansour Habib bisimilah simaani li yaballiru li abi batuli ziyarati wa bi rawdihi Cheikh Ajabaay simaani ne اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على المختار صلوا على النبي صلوا على المختار أمة أحمد دعوا إذا ما شئتم بعطائه فالأنبياء بقدس صلوا خلفه أكرم به قبل العروج ربه برم يكساه لنا أهل السماء استبشروا بقدومه واهتز عرش الله في إتيانه أوحى إليه الله من أسراره حبا له لا تخشى يا عبد العزيز سوى العلي فالله خشيته أحق بعبده وبسنة المختار كن متمسكا وبهديه أخلاقه وصفاته وبه استعن ومن استعان به يفوز والله إن شاء العلي بمراده وبه استعين على خط الموفر ينجيك جاء المصطفى من شره صلوا لا اله هللان المخصص بالشفاعة واللواء أكرم بي من ربي وبحوله سيد الحاج عبد الرئيس مالك taxtasimu kaala mawlaana du teqalikoo teqalikoo fu fi doon mu jëngu moo fashal tàggoo leen ko te la teer wax xama ataana bihi lhaadi li xayri subul lii moo rafet gaa yi la yàlla واسلك بهم مسلك الآباء يوم يجبل ونجي من نفس لعل نراو تين قدف لين ملي تنف تدك الدقر كوكوي شيخ الحاج يرضي سمالك كل ود واجو باخ دول أموي مني فلا جمت الإسلام لي مانكو خريبا سيري نيو داري am nañu responsabilité ndax bés bu ne ma dégg ci rajo yi kuy yalwaan ak taalibe bu nekk ci daara ji yalwaankat yee ëpp mais bu ñu ko bëggee résoudre la problème fawu état bi toog ak nitu daara yi ñu seet ba xam jéem a trouver les voies et les moyens pour jéem a saafara laloo waaye ku nekk yore sa micro di wax rek du tax mbir mi saafaraal ndax ahlu makkata adra bi shi'abiha boo nee dama fiy jëlee yalwaankat yi te tooguloo borom daara yi cooway bare waaye du ñu fa jóge ndax seen yitte suba ba ngoon jot mooy toog yëre seen kurus loo pexe suba ba ngoon jot bu ñu duggee ñaan yàlla mu jële la fi lu jar a bàyyi xel la ndax xale bi moom nga wax ni moom nga fi bëgg a bàyyi ëllëg waa loo koy bàyyee yonent bi sallallahu alayhi wa sallama wax na ni génn àdduna te bàyyiwulook sa njaboot dara musiba gënu koo rëy ñu ni ko ahadi mu ni waaw mu mel na dafa am ku déggul wax ji ni ko ma bàyyi kook ñaata mu ni ko waxuma xaalis waaye jikko joo xam ni dina ci tabax boppam ba bu la gisatul ëllëg mën a dem te du am lu ko jaaxal lii xew yëpp nag di xew kon foofu parent yi war nañu seetaat seen ay responsabilité ba ci li xew ci dëkk bi yëpp ñëpp di ko jooy dañu ci teg gi seen loxo moo tax damay bañ ñu jël yépp sëf ko sëriñ si walla ñu jël yépp sëf ko gouvernement bi ndax sëriñ bi ki nga njaboote ci sa kër te mënuloo ko yilif moom du la ko mën a yilifal gouvernement bi ki nga jur ci sa biir kër mu mel melokaan bu ko neex nga di ci teg sa bët bëgg mu yaral la ko du ko mën ndax dafay fekk yar wees suñu ñaari kilifa yi nguur gi yabal si boo dee critiquer da ngay critiquer teg ko ci logique waaye critiquer pour critiquer te yow li nga defa ngi fi nii weng kenn fàtteegu ko ñu lay wër di seet ba xam nga bëgg fi wax wax ju bare foo jëm te at yi am na ko waxoon ni am na ku waxoon ni bu ñu fexee ba ki fi nekkoon wàcc ñun ñëpp kaso ba la ñu jëm lu ko ko wax loo ndax ndax waaja dafa yore ay nagam di sàmm ba ñëw ci benn dëkk timis a ngeen jot mu romb euh, nuyoo waa ji fay ko ni ko na nga def mu ni ko ah, maa ngi fi rek alhamdulilah mu ni ko ah, euh, foo jëm nii mu ni ko dama doon kii mu ni ko ah, guddi na de te ngaa fanaan nag yi fii sàcc amu fi di mu ni ko lu fi indi tur bi lu fi indi tur bi kon fi ngeen fekkoon réew mi xam nañu ko yéen a ngi def itam effort ndax ñu ngi leen di suivre pas à pas ndax dañuy toog nag à côté moo tax man bi ñuy récompenser bi gars yi di wax di woon nañ ko def na lii waxoon na fi man waxoon naa de pourtant te kenn récompensé wu ma kenn woowu ma xanaa ngeen bañ a def rek ni gars yi di def ku yéeg rek tëj bunt yëpp fàtte baaxul de. waaye ci biir responsabilité yooyu leen yàlla gàll yéen ndax almuluuku aswaatullahi fi ardihi waaye ci biir jikko yooyu leen yàlla jox ci nguuram moom boole na ci ñaar yoo xam ni su ngeen ko dul bàyyi xel rekk lu bare bare fa lay jaare ba yàq lu bare bare bare te moo di chantage ak marchandage attention ñi nga xam ni ñu ngi am lu ñu leen di toppe waxuma rek pour def ko pour rancune déedéet mais nañu leen teg ci yoon ku ci deful dara ñu bàyyi la mais ku ci def dara nag ñu seet ba xam nooy def ba delloo li nga jël lii rek la ku ne tëj nañ ko fi kenn coowul ku ne tëj nañ ko fi lu ne fekk nañu fii waaw kon bu ñu jàppee ma sàmba walla ma dem ba ñu bëgg ko yóbbu def ko benn ampleur boo xam ne jaru ko ku ñu ci seet gis ni defoo dara ñu bàyyi la waaye ku ci def dara nag lu ñëpp bokk moom ah nga ni ko fuuf nag di nga bëgg foo noppaloo mu tëlla ala kulli xaal Mansour le ministre dinaa lay suivre parce que yaa yore fonction publique xoolal lu gën a metti ay nangami sénégalais ngay xëy ci seen kaw ci seen deret di ko muuc suba ba ngoon jot ndekete liggéeyuloo liggéey bu am solo la ci fi ngeen toll nii pour jéem a seet la ca jaarul woon lu mu laaj ci wàll yoon ngeen def ko waaye billati hi ahsan Sénégal faw yennat yi ñu jéem ko fee dindi gis nga ku am góom bëgg mu wér nga ni duma ko laal da ngay sonn bu leen déglu ñu baree bare ñi nga xam ne ñu ngi fi def loo xam ni démb ba léegi ni ñaa ngi koy fàttaliku fàtteeguñu ko bu leen leen déglu ñooñu dañuy parce que nee nañu ku ku gémmiñam di nàcc du wax jàmm te bu ngeen bëggee nag ku nekk ngeen tontu ko ngoon dina jot ngeen nekk ci tool weñ wala romb nga ni ko nii timis dina jot te kenn du dagg ñax waaye responsabilité yi ngeen jëloon devant le peuple sénégalais maa ngi dégg keroog di suivre ci ay tele ñuy wax ni ñu ngi leen di sant ndax am nañu effort yu doy yi ngeen def ci wàllu loyer bi loolu tamit faaw ñu encouragé ko ndax ñu ak yéen ñoo bokk réew mi lu ngeen ci def mu jaar yoon rek ñun ñëpp ngeen ko defal bu ko defee su ngeen ñëwee ñu wax leen ko loo xam ni gis nañu nii war nañ ci am xalaat ni suñu ko defee ne le moo gën ñu wax leen ko ñu defee ko noonu wante am na loo xam ni rafetlu wu ma ko ndax da ngeen ni gouvernement rupture n'est-ce fan yële ca gannaaw it ma toog di seetaan tele gis loo xam ni foogoon naa ni ca suñu maam rek la yemoon waaye mi ngi commencé waat di génn si mooy ma toog booba yéen a ngi feetu yéen a ngi feetu un an yu yu yu yu APR am ma gis ci mbokk mu jóg baatale ay xaalis di ko sànni ci mbooloo mi ñuy tëb di këf ma ni ay wacc bi doxul kat doxul de bu ngeen ko mënee saafara yu mel noonu ñu saafara ko beneen bi ci des itam mooy wàllu transhumance wàllu wàllu transhumance mi ngi mel na commencé waat na di feeñ ndànk-ndànk foofu laa doon bëgg a jëm si la ngeen waxante woon ak sénégalais yi ba ñu wóolu leen dénk leen réew mi yàlla la sooboon mu mottali moo tax ma ni ñaar waru leen ko nangu chantage ak marchandage soxlawu ko parce que yéen la fi nit ñi teg bu ëllëgee yéenay rendre compte mais du keneen kon toog ci fii ba mu neex la nga ni cappet dem fële ba mu neex la nga ni cappet dem ba nga ba mu neex la nga ni cappet ngir rek bëgg ku sàmm sa der ba nga raw nit ñi ci des nekk ci tumuraanke boobu doxul mukk da ngeen ko bàyyi xel ndax ñi fi nekkoon li leen fi jëlee wan na leen yoon yéen ba bu ëllëgee mën ngeen a bañ fot ci ndab li kon yan na leen yàlla jàppal Sénégal nag dañu mànk euh, manque de patience moo fi am loo def ñu xeeb ku nekk di tëlalali rek di wax te xamuñu li xew sax lan la moo tax patience faaw ñu am ko jéem a muñ def ndànk ba yegg fi ñu jëm ci kàttanu yàlla yal na yàlla jàppale leen waaye daal ngeen dimbale ñu ci daara yi dimbale ñu ci xale yi dimbale ñu ci école tubaab yi nga xam ni moom ngeen fi def naka ngeen di mën a fexe ba dugal ca enseignement religieux purement islamique ndax su boobaa al ajyal saaida dinañ ci mën a dëgg ba bu ëllëgee bu ñu ñëwee duñ ñu jéppi ñun te duñu leen jéppi yal na leen ko yàlla defal bi ci des ci wàllu sëriñ si ci ñi ma ko sañ wax ñi ngi def seen kem kàttan ñoom itam waaye sëriñ bu mel na man bëgg daraja bëgg dërëm te doo liggéey da ngay kenn mënul dab seen bànneex ku ci nekk di kaas rek waaw man defaluñ ma lii defaluñ ma lii waaw lu ñëpp bokk nga bëgg ñu simpi ko defal la ko yow kott doxul kenn mënu ko kenn mënu ko kon ñi nga xam ne ñu ngi ci bopp këri diine yi ku mel na Serigne Cheikh Tidiane Sy ak Cheikh Mouhamadul Mukhtar ak mbooleem kilifa diine yi ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàggal leen fi ci barke yonent bi ndax kat ñoom yàlla fay na leen ba pare jaare ko ci seen maam inna allaha yastaxyi an yanzia barakatan min mawdiin qad jaalaha fii yàlla rus na ko def barke ca tuubaa borom tuubaa dëdd mu rocc ko yàlla nee na meluma noonu nit a mel noonu ma def ko Tiwaawan Cheikh Al Hadj Malick dëdd ma dindi ko xamoo li xew moo tax yal na ñu leen yàlla fayal Euh, cheikh alxaaj Mouhamadul Mansour cheikh al qawmi yàlla nañu ko yàlla fayal moom itam waxuma ko parce que Serigne Babacar Mansour a ngi toog mukk waaye ku ma yéem la moom góor googu 57 ans nga réalisé fi li nga fi réalisé waaye ala qasru umrin fi ijtihaarin ka tuulihi ala qasru umrin fi ijtihaarin katulihi bu dundoon lu ëpp cinquante sept ans tax mu weesu foofu ci siiwa moo tax man dama naan ñun ñun ñëpp àggat nañu te kenn defagu fi dara ba pare di bëgg rey nit ñeeg wax taalibe yi wër la ngay wax rek léegi nag senegal moom dama yaakaar ni feebar wax daf fi dugg xam nga Ebola mi ngi fi mu ngi mi ngi ci Guinée mi ngi ci sous-région bi yàlla bu mu yegg si fii nag foofu it yàlla na ko fa yàlla yemale ñi ca faatu tey jullit yàlla na leen yàlla yërëm lu jar a bàyyi xel la nit ñi tamit bàyyi seen wàll ci wàllu cet gi waaw wàllu cet gi di raxas loxo yi fu ñu toll ci jamono bu ne waaye mel na ndaween yéeg jóobeen yéeg njaayeen yi rek bu ñu dugg see moom bu bool bi xasee ba tegu rek fàtte nañu lépp xanaa ni ci sa mbëx rek Fatou Dieng Ndao ak may xool diree rek yow moomu laay wax tabaarakallah lu jar a bàyyi xel la su ko defee rek euh, ñaari pouvoir yooyu temporel ak spirituel bu ñu àndee jag rek lépp jag ndax su boobaa àdduna dafay neex dund bi nëtëx nit ñi am jàmm waaye daal jàmm ji ñu am fii ci senegal rikk waay gars yi bu ñu ko caaxaane mag ñi ñaan nañu ko bis bu nekk ma dégg xaaj Mouhamadul Mansour mbay di wax nii Cheikh Al Hadj Malick ca Tiwaawan Serigne Touba ca Touba. Euh, bu kunta ca Njaasaan ñaan nañu fi ñaan yoo xamante ni bii ma ni ko dëgg la Xaaji Mansour waaye nit ñaa ngi koy bëgg a yàq ñu ngi koy yàqal seen bopp sax laay wax ndax ñaan yàlla ñu ba may leen ba yàlla may leen li mu leen may ñu bëgg ko fay ñun ba ñàkk loolu lu waay ren di ci sa loxo lay ñàkk lay nàcc nañu bàyyi xel te bàyyi tey waxante lu rafet di ca jàmm yàlla nee na benn ndab la am te ndab loolu fii ak ngi tilim yàlla nee na ma bank sama loxo duma ca def dara ñu ni ko ndab loolu lana mu ne xol yi xol yi xolu jullit bu setul soxlaatul lu bare bare bare ndax Habib si mu taxaw di wax ca jagsaaw ñépp naan eskay mu di ko wax ci Sidi Ahmed ñëpp naan eskay te fekk na yàlla xam na ni la may wax dama bëgg ku ni eskay waaye gëw ma ku ma gën a doye di amul wa min annaasi man yujibuka qawluhu fi lxayaati dunia wa yushhidu allaha ma fi qalbihi wa huwa aladdu lxisaab wa ida tawalla saa fi l li yufsida fiha wa yuhlika alxartha wannasl wallahu la yuhibu alfasad wa ida qila lahu ittaqillaha axadathu alizzatu bil ismi fa xasbuhu jahannam wala bisal mihaad te loolu rek fi am yàlla nee na xol boobu kon nag na ngeen fexe ba mu set ba lu ngeen yéene seen bopp na ngeen ko natt ndax yéene ngeen ko kudul yéen ba xam wala déet yàlla nee na bu ngeen ko nattee feesu ko rek bu ngeen ñaanee du ma nangu nañuy yéeneente jàmm ñuy wax lu rafet nañuy seedeel nit ñi lu ñu xam waaye sa moroomu góor romb la lu la neex nga wax ko yal ci yàlla musal Cheikh Hadj Mouhamadul Mansour boobu 57 ans yooyu mu dund ma ni ala qasru umrin fi ijtihaadin ka tuulihi euh, boo ko dee xool di xool ay daam man sax dégguma arab xanaa damay tataf rek di tappale di tappale waaye li mu wax bàyyam Cheikh Al Hadj Malick jar na ñun ñëpp ñu delloo ko njukkal fardun ala al ibni shukrul walidayni antal walidul barru yaa ustaadu ay ca waay Abdou fardun ala al ibni shukrul walidayni ñoo ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Sidi Moukhtar di jiital ci nuyoo boobu si Mbaye Sy Mansour di jël nuyoo njaboot gi yépp di ko teg ci loxoom mu tagal ñu ko ci loxo Seydi Abdou Aziz mu tagal ñu ko ci loxo Cheikh Ahmed Tidiane Sy Maftou ñuy nuyoo Cheikh Sidi Moukhtar ak ndokteelam ak cofeelam ci yéen ñaanam ak i di nuyu bu baax sëñ Habib mi doon wax léegi xam naa wut ko ci kàddu dana jafe lool xanaa rek ma jot li nuyoo yeeg cant yi rek gàttal ko mu yem fi ndax li ma doon wax lépp mën nañoo wax ni wax na ko te bu waxee rek wax nañu bu waxee Tiwaawan wax na Tuubaa wax na feneen wax na ñuy am mbégte bu baax ci kàddu yi nga xam ne sànni na ko fi ndax matériel bi sëkk di nuyu bu baax Serigne Moustapha Cissé di ko jot li nuyoo Serigne bi moom itam di nuyu bu baax Serigne Abdou Lahad suñu wéjur bii ñëw léegi toog di rakk ci Cheikh Sidi Moukhtar jóg ñëw ngir bis bi ñu di ko jot li suñu nuyoo ak nuyoo Serigne bi. du nuyu bu baax Serigne Modou Mamoun mu àndal nga xam ni. jubaayu Tuubaa la muy rëy la yaakaar day bari bari la la la lañ fay séentu lépp te jot na yàlla dana ko def moom la ci sëriñ bi wóolu gannaaw bi sëriñ Abdou Khadir bàyyi ko moom la wax ni ko taawal foofu jiital ma ko mu di ko jiital te itam kenn gisagul te loo xam ne waree su ko gis kon ko jot lii nuyoo bu baax bu bi di jot nuyu sërif bu baax itam ndax ginnaaw tàntal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la bu fi ab sëtam toogee ñu bàyyi ko ci Cheikh Sidi Moukhtar war nañ koo jot li nuyoo di nuyu bu baax itam euh, sëriñ Moustapha Cissé ak sëriñ Maodo sëriñ Moustapha daje nañ jaamoon bërki démb kàddu ya mu wax muy kàddu yu rafet yoo xam ne bu ma ko jot lee sëriñ bi daf lay wax ah loolu rek li laa séentu ci moom ëtt bu nekk itam te ëttu diina loolu laa fa séentu daa di may wax ni waa ñun de xam naa bépp ëtt bu mu doon la fa yàlla def yéene nañ ko borom te itam lépp lu yàlla yaatal du mu xatal lépp lu yàlla xatal it nu ko yàlla tollal nu toll noonu mooy li sëñ Aliou bi bi may ñëw itam daf maa lu mat fukki ak juróom a ngi nii muy laaj ca bis bi samedi ni samedi boobu ngir ngir yàkkamti ko te loolu dara waral lu ko dudul jikko kër gii nga xam ne fi la fi la ñëw. ak comportement yi nga xam ne am nañ ko ci kanamam am ko fi moom muy Serigne Habib mi nga xam ne moo ñëwoon di ko wax di Serigne Maodo di Serigne Mbaye suñu wajur bii ndax am na ay yoon bu mu ñëw ci Serigne bi keroog na bay dem Serigne bee ko téyewaat ni ko maa ngi lay déglu te li may dégg naqariwu te te te xam naa jotutoon ni ni ni loola maa ngi koy déglu te loolu la wax sëñ Mbaye si keroog ni ko maa ngi dégg maa de te li may dégg naqariwu am wax yeneen yu bari yu mu ci teg yoo xam ne xëy na jotaay bi xam ne kon ñu jàll ci muy nuyu itam nga xam ne ñoo fi teewal gouvernement bi di Mansour Sy ministre fonction publique di ko jottali nuyoo sëriñ bi mu jottali ni ko président de la république moo ñi mu àndal ñëpp nuyoo ak i ñaanam di nuyu nag sama xarit di xarit képp ku baax te xam ko mu xam la muy Matar Cissé man sama xarit la te ku baax ku ko xam mu xam la rek da xam ni lii may wax dëgg na ndax ñun dañuy faral di wax ni rus nañoo toog nit loo xam ni dëggul ci moom ndax daañu laloo suñu di doon ëllëg te luñ waxoon daañu koo xam ñu topp te kooku teraanga jën yàlla teral doy na bu dee ëppur dul tur li nga xam ne suñu borom la kon nag Mouhamadou Makhtar ñoo ngi lay jot li yu sëriñ bi di jot li ay ñaanam di la jot li ay cantam waaw bu baax koo def rek ñu wax ko ndax am na ñu ko fi dégg ñoo xam ne xëy na xamuñu ko suñ ko déggee mën nañ laa ñaanal te gimiñ yàlla dina ko yàlla rek moo ko xam mbooloo mi fi teew di nuyu El Hadj Mansour mi nga xam ne li mu wax ci Cheikh Sidi Moukhtar yéen ñëpp dégg ngeen ko li mu wax ci ñiitam muy suñu xarit xam ñu xam ko te bu yàgg li mu wax lépp dégg ngeen ko ñu di ko bu baax di ko di ko jot li nuyoo sëñ bi di ko jot li seeraam di ko jot li ay nag bu ma naa jaar ci Cheikh Tidiane Dieye mi ànd ak moom dem ci Serigne Habib bi ma ñëwee itam loolu laa def kon daal ci gàttal képp koo xam ne yaa fi teew di góor suñu bopp jigéen yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen jot li nuyoo sax si di képp ku fi teew di góor di jigéen di mag ndaw ñoo jot li nuyu wax tax duñ ci guddal xam naa daal mag ñi li nga xam ne dañ ko fee bàyyi woon doon ko xeex Alaaji Maalik Si doon ko xeex ba ba fii tey dem ci jaarle dem ci tay dem ci daaya fi mu ci war a dem yëpp mu dem ko ci te xeex jaahiliya rek moo war a doon lool xeex ak réer rek mooy mooy lu war a doon lool waaye gars yi ba mu juddoo bu fa toogoon na ko a doon ñoom ñuy di fee bàyyi a ngi ndax mbooloo mii fi daje tey jii El Hadj Malick bu sëcc dëkk bi mosu fee mën a dajale mbooloo mu ne toll ña ma wuutoon mënuñu fee dajale mbooloo mu toll waaye nag garab bu fekkee ne dañ koo jëmbat di ko suuxat boo mën a xëy rek ci da koy suuxat di ko di suuxat di suuxat a yàlla dogal sax nga jóge fi keneen di suuxat ba mujj ki garab gi ak sépp xaj ci kon garab gii ñu jëmbatoon bonee na ni tey jii màgg na ñëpp xaj na te di ko jariñoo Cheikh Sidi Moukhtar nag loolu moo waral mu wax ñu ñëw teewal ko fii ngir mbégte moo xam ne am na ko ci tarixa bi ak mbégte moo xam ne am na ko ci taalibe yi mbégte moo xam ne am na ko ci bi mu fi toogee léegi doxin xam ne ñu ngi koy doxal moom ndax ba mu toogee dafa wax ne wax ci suñu bi abdoulaye jamian wala tafarraqu dafa wax ne euh, innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum pourtant wax na ko waaye loolu alxuraan moo ko jëkk digal jullit yi jullit yi kan damaa wax ne euh, sunu mag yi doxin bi nga xam ne war nañu ko dox mooy li alxuraan digle mooy ñaari aay yi ma wax léegi te aay yooyu kat alxuraan bi mu nu ko digalee bu ñu jullit nii defuñu ko américains yi ñoom dañ koo def des circuits mooy euh, États-Unis juróom fukki réew mi nangam yu booloo nekk dem adduna sëpp ñoo fi man toog ci kaw nit doon kenn par bi Europe demee ba xam ne Amérique def na ko réussir ko dañoo dabaatal def Europe indi muy état Schengen bi ngeen di dégg dañoo dem ba gis ne Amérique réussir na loolu leen daaw France ak onze jullit ñi defuñu ko Amérique def na daal benn après lañ soog a def union africaine bi ñun ñii itam pour pour jéem a dellu ca loolu te loolu jullit ñi fi nekk nii li ñu am ci or am ko ci jamaa am ko ci xaalis am ko ci pétrole bi nga xam ne mooy mooy mooy mooy matière première mooy mooy premier bu fekkoon ne tey jii loolu leen alxuraan defoon waa waxoon defoon ko rek kenn leen mënal dara waaye nag loolu leen alxuraan wax ñu ko woon tubaab yi ñoom jëf nañ ko am ci rési te kat damay wax ni ñun amuñu or du Sénégal amuñu jabar amuñu wala boog buñ ko amee bëri léegi waaye stabilité am nañ ne muy jàmm te jàmm mooy li nga xam ne moo gën a am solo jullit pourtant jàmm jooju de sunu mag ñii nga xam ne ñoo fi nekkoon doon fi jàngale alxuraan doon fi jàngalee téere eh, sénatul islam yooyu ngir bëgg nit ñi teg seen tànk ci siraatal mustaqim teg seen tànk ci njub te aw ci ñooñu de stabilité bi fi am ñoo ko fi indi tey jii sëriñ bi wax na ko léegi kon daara yi nekk na loo xam ni lu lu lu lu mat a jàpp la lu mat a jàppale la xëy na sax eh, eh, mënut a ñàkk ci ci poids spirituel ak poids temporel ñoom ñaar ñoo làng yii. képp ku ci jàppalee mën ngaa dem bocc ka ca des daanaka da ngay nax sa bopp ndax ki nga xam ni lépp lépp lépp ci loi yu réew mi moom moo koy dogal ak ki nga xam ni bu yorul loi yu réew mi itam bu toogee ci këram wala mu wax ci rajo ni nañ def nangam lam wax kenn ku ca mooy benn baat ñii ñaar buñ lëngoo rek comme ko sëñ bi waxee léegi yaakaar naa ne réew mi gën a baax te lëngoo boobu itam mi ngi mën a amee ci ñu jàppalante sëriñ lañ am ni ak sëriñ la muy def loolu sëriñ comme ni ko sëriñ waxee léegi sëriñ day jàng sëriñ day jàngale sëriñ day dimbale waaye marché bu saa yi xëccoo nga nga nga nga jiitu leen ci te ni te ni bi te marché bu saa yu xëccoo nga jiitu leen ci doo wane mukk ni diw mi mokkal na maa tax mokkal ndax dër bi doon ne maa ko jàngal nit maqaamu bi doon ne maa ko jàngal nit ah xam naa nga de waaye mënoon ngaa gën a defal waaw ah, sëriñ nga waaye nag mënoon ngaa gën a defal kon. ñu góor bu baax ci jàpp bi ak jàppalante bi surtout alxuraan bi surtout alxuraan bi sëriñ bi wax léegi alxuraan moom ci la lépp nekk lu mën a doon ci adduna rek dara génn loo xam ne nag dara génn ko réew moo xam ne jàpp la ko te jàpp la ko fa nga bëgg a dem fa nga fa nga bëgg àgg ni nga fa àgg ndax suñu mag ñii de ñoo gën or ñoo gën jamaa ñoo gën pétrole ndax ña am or ak jamaa ak pétrole nekkuñ ci jàmm bu tëddee du nelaw ñun nag bu tëddee du nelaw te suñu mag ñooñu lana ko may tere ñu bokk ndàmbaaru réew mi sax day jëlaat waaye nag lana ko may ñooñu tere ñu bokk kon kàddu yi lañ bëggoon xam ne di gërëm ñëpp di sant ñëpp. dellu nag sëñ Mbaye di la seere cantu Cheikh Sidi Moukhtar ci njaboot muy Pape Moukhtar bi muy sëñ Maodo muy sëñ Habib muy sëñ Habib mi ci sëñ Alaaji Abdou Aziz muy muy Sidi Mouhamad ngi seere muy sëñ Ahmadou sëñ Abdou Aziz sëñ baa ngi seere cantam ci noonu ndax ñoom ñëpp dañuy jóg ko seet ku ci dajeeg ñun ci barab bi tam dafay mel ni dimbam moom nga gis te loolu mooy li nga xam ne mooy li mën ñu jëmbatoo ngeen di ko suuxat ba mu yëg ba ci yéen ngeen di ko suuxat ba am na mu toll ni yéen loolee bu ñu wëññee boo ñeekoo di ko gisaat ci biir njaboot bi wax na ni mi ngi ci sant bu baax mi ngi ci am mbégte bu baax mi ngi ci am kontaante bu baax euh, jotaay bi nag mel na moo xam ne li mu bëggoon wax ëpp na lii li ma yéene ëpp na lii ndax man lii lii rek li bëgg l'islam lii rek la bëgg ñaari penku amul ñaari xibla amul benn xibla moo am ñaari faatiha amul benn moo am farata yi ci julli yenn la sunna yi yenn la tijaani murit xaadira bi ñëpp ñoo ko bokk Daksaw bi ñu fi ñëw am na ñu jóge Ndakaaru muy yoon la dañoo dugg si maa ngi jóge Mbàkke Kajoor yoon bi damaa dugg si am na ku jóge Daaru Gay yoon bi daa dugg si am na ku jóge Canaba yoon bi daa dugg si noonu dong la trop yu bari asalaamaaleykum wa rahmatullah Cheikhal Seydi Bara Abdou Lahad Lo ah nekk moom itam nit ku si ni ma bëggee sopp ma kër Cheikh Seydi El Hadji Malick Seydi Bara moomu nag ci la bokk ci ñi ma sopp moom itam su tabaski jotee bu ma tànnalee xar rek bu ñëwee ma xam ne léegi nag ci diglu Sidi Boubacar nu jox sunu imaam bu baax bii bu yaru bii jóge ca sang bu tedd ba moom itam Sidi Maxtaar mu sànni ay kat bisimilah bu suuf bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد بآله صحابته أئمة المتقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته xamna dafa fekk ne tudd nañ ma ci jël kàddu gi ba noppi waxe euh, ni ko sëñ euh, sëñ Cheikh Baara waxe sëñ Cheikh Baara Abdoul Ahad sëriñ Habib waxe ko ni li ma war a wax lépp dugg na ci biir kaddu cant nag lu gàtt gàtt da du mat a xeet mu jógee Tuubaa ba ñëw fii ci ndigal loolu sëñ Sidil Muxtaar mi jaboote yoonu xaadimu rasul suñu borom yàggal ko damay jotal kàdduy cant yu jóge ci rakkam di porte parole kum doyloo te wóolu ko tànn ko ci biir ay rakkam ko baatam di ko doxe doxe noo rafet lool te lu tey lu ñëpp seer muy cheikh Mouhamadul Bachir ibn cheikh Abdul Qadir ibn cheikhina Ahmadul Xadim ah ndem sëriñ Abdul Ahad Mbakke ibnu cheikh Sohaib ibnu di mag ci cheikh seen Cheikh Baara mi teew teew ci tuuru Cheikh Seydil Moxtaar kaddu cant bu jógee ci Cheikh Bas nga xam ne bëccëgub démb yépp mi ngi yendoo pas-pasu ñëwal boppam biñ demee ba nga xam ne àgg nañ ci lu toll ci fukki waxtu ci guddi la ma woo téléphone ne ma Seydi Ahmed day day nit ku baax ku woyof ku bari yitte fonk ak bokk xam li doxoon diggante Cheikhuna Ahmadul Xadim ak Seydina Alxaji Malik Si xam li doxoon diggante Seydi Aboubacar Cheikh Abdoul Aziz Serigne Mansour ak ñi fi nekkal Serigne Touba tàmbali ci Cheikh Moustapha ba ci Seydil Muxtaar mi xam gum xam loolu gis nañ ko doon dundale diggante Cheikh rawatina diggante Cheikh Abdul ci niñ ko waxe fii léegi ci jataay boobee ca jumaa ja nga xam ne ba mu dikkee sëñ bi ca sunnaaga xamal ko ne ko jumaa ji de agsi na ngir bàyyi xel àtteeg musaafir mu ne ko damay ànd ak yow julli bu ma demee maa lay liqaam keroog Cheikh Abdoul Aziz moo liqaamal Cheikh Abdoul Qadir wax fa wax joo xam ne ji taarix dootu ko ñu ngi ñuy waxtaane ba léegi si te noonu mu def ak Cheikh Abdoul ni la def ak njabootu Cheikhul Xadim gépp ci wuutu googu mu wuutu ay magam sëriñ Mansour ak Cheikh Aboubacar Cheikh ne wax mu ne ma kon dama nekk ci ndigalul Seydil Muxtaar bi may woo nee na maa ngi nii ci yoon wi génn naa kër gi maa ngay dem ci ndigalul sëriñ kon nag bàyyi boo def nanga nga boo xëyee rek nga dem teewal ma fa ndax Sidi Ahmed day dafa woyof lool te am yitte ndax moo fi dikkal boppam ànd ak délégation bu takku wax ma bis bi ba ma xamal ko ne ko danaa ñëw waaye nag ndem Seydil Muxtaar moo ko doyloo wóolu ko tey kilifa yebal ko ci yitte mel na ni teew na ndax Cheikh Cheikh Baara mi wala boog sëñ Abdul Hasan yi mi nga xam moo ne ci bopp yoon yo di Seydul Muxtaar si jataay bi nga tey di Seyd Ahmad Tijaani si jataay bi démb na mu demee lépp di benn hmm? euh, kon sëñ Saliou daana ma yónni ci ay yitte ci biir bokk bi wala ci biir xeeti ndaje bokki taalibe bi ak jullit yi am na ci boo xam ne bii daf ma ne boo demee day boo fa fekkee kenn koo xam ne kii moo la gën a jege sëriñ bi na fa kàddu gi jox ko ko bul bul feeñ nay lépp nekk ci ginnaaw ba fii nii loolu duma ko fàtte moo tax jël gi kàddu feeñal cantu Cheikh Bass rek la jiw ak bokkoo bu mu bokkoo Sidi Ahmed ak neex bu ko ay jikkoom neex ak yëg ko may ak yëtti gum ko may kon nag Cheikh Abdoul Ahad maa ngi jéggalu maarantanoo eh, si eh, sëñ eh, Mbay Mansour yaa ngi ñu ngi fi toogal ñëpp di njabootu sëñ Alhaji Malick maa ngi leen di joto jotoon ñu yow Cheikh Bass sëñ Mansour Mbay li sama xarit di sama wala rek ñu seq lu bari bëgg dem rek noo bokk yendu ndakaaru ci yitte joo xam ne ji bokk suñu bokk bu jaxasoo ci njaboot gi moo waral ñu bokk fa yendu waxtaane nañ ko maa ngi koy siyaare di siyaare ñëpp di jéggulu nag ci kàddu ni mu war a ni mu war a taxaw te matiwuma ko waaw auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu sëriñ bi maa ngi yëkkati kàddu ci turu sa xarit sa soppe président de la république El Hadji Macky ni ñu fi yónni ñu ñëw fii ak délégation bii ñu lim te ma bëggeen cee ràññe rek monsieur le ministre du budget Makhtar Cissé nga xam ne bi may bëgg a bind délégation bi daf na ma bokkuma ci sa délégation ci délégation Serigne Mbaye Sy Mansour laa bokk ma ko kon ñoo bokk délégation ndax délégation boobu mooy délégation président de la république ñu ànd ak gouverneur ak préfet ak député yi nga xam ne ñoo fi nekk ak chef de service yëpp ñëpp xam nañ ne dañu génn fête de l'indépendance te bisu tey bi yëpp gan yi ñu amoon la ñuy gunge. ci ngoon mu amoon daje bu mag boo xam ne minis yëpp waroon nañ fa toog mu wooñi ci suba ne ñu dafa am lu xew muy jagsaaw bëggoon naa yéen yi leen ci daje boobu ndax mën nañoo bañ a dem fu nekk ba mu des jaax saaw ndax jaax saaw mën naa ne ba mu mettee daanaa fi ñëw ay ati at ay yooni yoon ay ñaan laa fi jële te dafa am lu ma ci jàpp mu ne du bërëbu ñaan dong mu ne ma jëlal sa kayit bind ma bind mu ne ma dafa amoon bi ñu nekkee ci colonisation bi benn administrateur colonial bu fi nekkoon ko ñu di ko wax Paul Marty mu nekkoon interprète jàng arab lu bëri bi tubaab bi bëggee xam lu xew jagsaaw ñu yónni ko jël seeni agence ak di yónni ndax li leen jaaxaloon mooy lu tax mu muqaddam yi li fi génn ñoom ñëpp ku fi génn gën a xam alxuraan gën a liggéey gën a xam agriculture mu ne kooku bi mu xoolee moom lii mu bindoon mu ne Diacksao université populaire seetal booba kon nag bu fekkente ni dañoo woote saw fokk mu yónnee délégation te bu ñu yónnee délégation dinañ xam ne xëy na li ñu ko dénk moo diis mais boppam ñëw na ndax xam ne ne fii bërëbu ñaan kon nag mu ngi lay nuyu nuyu bu sell di ko yëkkati di ko teg ci sa loxo ne nga tegal ko ci loxo xarit général Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum tegal ko ci loxo njabootu Sidi Hadj Malick yëpp teg ko ci njabootu tarixa diine yëpp parce que ñëpp ngi fi tey wane nañ ne yëpp benn bopp lañ li tax mu gën a bëgg ñu ñëw toogal ko fi nee na li ngeen di def yëpp pour wax nit ki lan moo ko war lan mooy ay jikkoom lan moo war jullit bi lan moo war ki nga xam ne moom lañu ñu dénk réew mi lan moo war ki nga xam ne mooy wayjur bi defe naa sama sëriñ Habib si wax na ci lu am solo kenn ku nekk fi jóge tey jàng nga ci lu bëri. ñu ngi leen di gërëm di leen sant di rafetlu bu baax toogaay bi. waxoon na ma nag bu ma ñëwee parce que nit ku nekk li ëpp solo mooy nga xam rek fa nga jóge parce que boo xamee fa nga jóge xam fi nga tollu xam fa nga bëgg a dem defe naa ne boo àndeek ñi nga xam ne yéen a bokk gis-gis ànd ak ñi nga xam ne bëgg nañu réew mi bu ñoo jàppalee parce wax nañ ko léegi Sénégal amul pétrole amul dara wante kenn ku nekk bitim réew boo nee Sénégal ñépp lay bëgg a for woon loolu nag bu amee ñaan yi fi kilifay diine yi def looloo tax président ne woon nañu fi ñëw ziyaare leen ñaanal leen ñaan yàlla yàlla may leen wér ak wérle ak tal ñaan leen ngeen ñaanal Sénégal ñaanal réew mi ñaanal jàmm lépp li nga xam ne def ngeen ko fi ci fan yii ak alxuraan karim bi ngeen fi jàmm yëpp li ngeen fi ñàmm yëpp yal ko suñu boroom nangu loolu mooy li nga xam ne waxoon nañ ne bu ñu ñëwee fii ñu jottali ko mbooloo mi dafa xaw a guddi wante am na lu bari loo xam ne junj nañ ko fii dégg nañ ko dinañ ko ko doole wérgu yaram indi njàng jàppale ñu néew doole yi day loo xam ne li état bi war na ko gën a mën a def te comme dafa jàpp moom ne dafa am lu mag lu mu sumb tudde ko couverture maladie universelle maanaam fu sénégalais nekk bu amee bu amul bu feebaree war naa mën a faju te loolu li koy mën a indi mooy jàppalante ci suñu biir te réew mi def li nga xam ne lii moom moom la war a def ci fànn boobu te boo gisee président de la république jàpp ci loolu daf ni buñ la dénkee réew ñi lay wax dëgg ñooñu ñooy mën a tax lépp loo am ci jafe-jafe kon nag président de la république mi ngi rafetlu bu baax di la ñaanal bu baax maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam